société bi ñun ñëpp dañu mel ay lettre lañ ay lettre la ñun ñëpp buñ séparé woo duñ am sens alifun kese bu séparé woo amul firi jiimun kese bu séparé woo amul firi mais bu arrivé taqalantee am relation nga jël miim ak min boole ko muy min léegi ci mu am lu muy signifié nga jël ayin ak laam boole ak alif muy ala mu am firi mais buñ séparé woo duñ am njëriñ mais pour ñu ànd nag fokk dana am ñu ñuy wàññi da ngay wàññi sa bopp dara jox ko sa moroom sa morom wàññi jox la ànd doo ko maanaam fokk sa àq dana am loo ci bàyyi soo bëggoon a bind ci misaal allahu laam ne man kenn duma dagg nañ ma bindee ni ma meloon ca bañ ma iji xawoon ñëw ne nañ ma bind na ma meloon mais kon du am baatu baat bu fooree ne allahu fokk laam dana am luñ ñu coppati ci moom ha ni meloon ñu changé ko kenn ku ne am loo ba pour kàndoo gi mën a dox mbokk yi ñeenti baat ngi nii nañ ko bàyyi xel laay jii nii ñu war a jàngat laay jëta laay jë ca suuratu nisa moo ñu ko firi xam nga yàlla daf ne yéen nit ñi man maa leen bind ngeen bàyyi ko ci génn góor ak génn ak jigéen ma dama ngeen nekk ay giir ak ay famille fu ngeen xamante bàyyi mu ne yàlla binduñu pour ñu xamante daf ñu bind pour ñu jaamu laaye ji signal bu doon wax ca gannaaw wa ma xalatul jinna wal insa illa li yaabuduni day mel ni mook ñaari la mook laaye ji dañoo am tuddi Europe dama bind dama leen bind yéen ñëpp pour ngeen xamante jeneen laay mooy dama leen bind pour ngeen jaamu ma waa xamante moo tax ñu bind ñoom jaamu ko moo tax ñu bind ko bàyyi mooy da ngay wéy ca kanam mooy inna akramakum at atqaakum bàyyi mu ne foofu la laay ja jëm doo taxaw ci xamante gi da taxaw ci gënante gi ak lañ gënante mooy ci ragal yàlla lañ gënante te ragal yàlla jaamu yàlla moo fa yóbbu nit kon ñaar laay boo seetee ñoo bokk li ñuy wax mbokki taalibe yi bu ñu jàngatee laay jooju xamante lu tax lislaam alquran nañu di taarafu lan mooy njëriñu taaruf su fekkee danga settantal ñetti min yi yaa yoon naa itaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin nga bàyyi xel min nafsin min wa xalaqa min ha nga bàyyi xel min gi wa batha min huma nga bàyyi xel min gi ñetti min yii su fekkee bàyyi nañ ko xel min nafsin waxida muy yonti yàlla aadam wa xalaqa min a zawjaha soxna si di xawaa mi ngi bàyyeekoo ci suñ maam aadam wa bassa min uma muy mag yow léegi nag su fekkee dañoo bëggoon a tàqali ko ñetti min yii moo ñu takkale mbokk yi suñ bàyyeekoo ci jënn jëmbu ñun ñëpp jëm jooja am jëm ci bàyyikoo di soxnaam muy maam suñu xawa góor gu mën a doon jigéen gu mën a doon ba dina tukki bàyyikoo ci ñoom ñaar kon buñ settantalee dëgg-dëgg bokkaataa sa morom yow yaa war a njëkk a nàcc ndax ñetti min yi leen taqale suñu doon bàyyi xel cosaan loolu kon xeeb du am duñ xeebante ci awaskan duñ ci daraja duñ xeebante ci juddu wala ci amam ñi ngi fonkante ci ak inna akramakum indallahi atqaakum kon su ko defee mbokk yi li taxaarufu juuju mu wax yàlla mu ne maa leen bind yéen ñëpp pour ngeen mën a xamante li tax nag xamante bëri njariñ mooy dafa am luñ tuddee awaamirul iqaay yi mën a jur xamante lislaam benn ba ne daf ko encouragé bu baax société bi ñun ñëpp dañu mel ay lettre lañ ay lettre la ñun ñëpp buñ séparé woo duñ am sens alifun kese bu séparé woo amul firi jiimun kese bu séparé woo amul firi mais bu arif taqalantee am relation nga jël miim ak min boole ko muy min léegi ci mu am lu muy signifie nga jël ayin ak laam boole ak alif muy ala mu am firi mais bu ñu séparé woo duñu am njëriñ mais pour ñu ànd nag fokk dana am ñu ñuy wàññi dangay wàññi sa bopp dara jox ko sa moroom sa morom wàññi jox la ànd doo ko maanaam fokk sa àq dana am loo ci bàyyi soo bëggoon a bind ci misaal allahu laam ne man kenn duma dagg nañ ma bindee ni ma meloon ca bañ may ijji xaawun ñëw ne nañ ma bind na ma meloon mais kon du ñu am baatu baat bu fooree ne allahu fokk laam dana am luñ ñu coppati ci moom ha ni meloon ñu changé ko kenn ku ne am loo ba pour kàndoo gi mën a dox kon mbokk yi bu ñu araf yi gën a gën a muus biñ beroo amuñ firi biñ àndee lañ am firi alxuraan lu mu foor foor foor araf ànd moo ko kare kere bu araf yi séparé woon du ñu am téere bu baaxee ni alxuraan su ko defee nag euh, taaruf googu alxuraan digle yonent daf ne ni ñu war a mel ñun jullit ñi da ko misaal ci ñetti mbir ci cat la mu ne kël jasadi al muslimu miraatu pour pourquoi mu daf ñuy comme tabax boo déggee tabax danga mën a xam yow loo war a taxawee ci biir xamante gi tabax bi yu bëri lañ boole jël ndox suuf ciment boole mu nekk ay birig gis nga birig yooyu boo jàngatee birig yi am na pale am na kër su demee bay tabax birig kër plein yëpp ñooy laalu ci biir suuf si duñ leen pentiir duñ leen karo duñ leen raax waaye comme que bëgg nañ yëf yi taxaw ñoom nangu nañoo ne mes ci biir ci biir suuf si danga ciy jànge ngu yónul saa sa mu ne ñun dañoo war a mel ni tabax yow loo ci war a jànge mooy su fekkee kàndoo gi léeg-léeg nga réer mooy tax zaawiya bi baax léeg-léeg nga sëgg mooy tax pee bi sëggi léeg-léeg ñàkk laa jox daraja jox sa moroom mooy tax yëf baax su boobaa da ngay roy dañuy wax ne julli ñi dañoo war a mel ni tabax loolu bu ñu jàppante woon noona waaye su fekkee ne brique plein yi dañ ne man duñ ma ñàkk a pendir karo danaa ci am sama wàll. fu ñu toll war nañ maa séen mbokki taalibe yi mbokk yooyu kon tabax du taxaw kon tabax du am fokk rek danañ roy tabax kon al mu al al mu'min lil mu'min kal bunyaani muy benn tomb ñaareel tomb bi mbokk yi uyun salaa salaam misaalal nañu ñun jullit ñi dañoo war a mel ni wennaw yaram te loolu li ko waral mooy buñ defee taaruf xamante taaluf am miinante bu taaluf amee taxaabub am bëggante su amee te taawun am dimbalante rek société bi taxaw kon xamante gi loolu lay jur lu tax mu ne dañu war a miin aw yaram mbokki taalibe yi kenn ku ne xam na ne làmmiñ du takk mont làmmiñ du sol dàll mais bu nee ba ca marché ba mooy waxaale mooy waxaale bañ jënd mu jël mbokk loxoom solal ko montre bi mooy waxaale mbaxana te du ko sol mooy waxaale kawasi te du ko sol waaye ñu fexe ba jëmm ji déggoo kenn ku nekk bu nit naree gaañu am lu daanu sa kaw bopp mënta défendre loxo moo ñëw défendre jëmm ji yëpp soo waree daw tànk ma nan toog leen ma dawal leen làmmiñ nag noppi leen ma waxal leen bët ne bàyyi leen ma xoolal leen su ko defee kenn ku nekk am sa taxawaay ci jëmm ji jëmm ji mën a baax buñ ne nañ tafle ñu bàyyee gémmiñ nañ ñendeeku ñu bàyyee ko bakkan nañ jooy ñu bàyyee ko bët nañ tur ndox am na fa koy def liquide bu ne am fu muy génnee ñu déggoo ci kenn du ko jóg sa moroom waaye mbokk yi bokk na ci suñ problème dañuy dem ba léegi ñu ne bët na ñendeeku na bakkan yooyu bu amee rek da ngay daal di gis société bi commencé feebar liquide bu génnee fur fam daa génnee rek xam ne jëmu ji tey ma nga tëdd hôpital kon suñu yaramu société bi bokk na ci li ko feebar dañoo ñàkk jëfandikoo li yonent wax sallallahu alayhi wasallam dañoo war a mel ni wenn yaram kenn ku ne liquide bala yàlla may ñu bayee la ko kenn ku ne di défendre sa morom kenn ku ne sa morom jaral la lu nekk kenn ku ne xam na ne sangu ba ci ñaar loxo yi bokkutoon jëmm ju set waaye pour jëmm ji set na tax ñaar loxo yi participer kon nag mbokk yi kenn ku nekk cër nga ci jëmm ji bu ñu ko jàppantee dañ mën a dimbalante bi topp mooy kon wax na ci wàllu jàppoo mooy taraabut mu ne nañ mel ni tabax wax na ci wàllu yërëmante mooy taraaxum nañ mel ni wenn yaram su bopp feebaree keroog waa ji du xëy tànk dara jotu ko mais nga fexe ba jullit bu am jafe-jafe Cheikh Ibrahima radiallahu anhu daana ñàkk nelaw ngir problème boo xam ne fa mu xew sax kenn xamul fan la ci àdduna bi ndax xam ne lislaam benn jëmm la waaye su fekkee bopp baa ngi métti tànk yi yëgula ko sama yaramam loxo yi yëgula ko yaramam bés day jot rek ñoom ñoom ñu bokk gaale kon àndoo boobu yonti di oote nan nañ roy aw yaram mbokki taalibe yi dëgg-dëgg loolu darsul boo xam ne bu ñu ko jëlee kon xamante gi daf ñu yóbbu ci mën a dimbalante benn bi mu ne nañ mel ni ay seetu ñetti misaal yu yu kowe mooy nañ di laa nañ laayante biir waaye laayante biir bil xikmati wal mawizati al xasanati su fekkee ne dañoo nekk doomu yàlla moo ko bind ci feeñuwaayu mata bi bàyyi mu ne kamaal daf ñuy gaaral mat mooy suñ maqaama dimbalante nak ni nga xamee ne waa bu bëggee génn lim sol am num démé ba am num tak ci sikinam sété bi moo ne sëriñ bi am nga lo tak moro risiko mu jagle doo ko génn kenn ku nit ñun wara nek sa sétu morom su fekkee da nga nek sa morom julit nga déggal ko ben ayib du ko yobu ci penjima demal ba ci mom nga waxtaan ak mom jital laye ko wane ko moom ki mu doon ak ni mu rëyee fa yàlla ab jullit ba mu xam ne moom borom saraf la nga ne ko nangam ak nangam na gënut kon bu ñu ma leen seetu suñu diggante ñu mel ni wenn yaram taaruf yóbbu ñu ñu mel ni ab tabax dëgg-dëgg mbokk yi jëriñ fi waaye dama ne bàyyi def ne li taarufu jiñ jàng mu ne du taxawukaay taxawukaay ma ngi ci inna ak ja mbokk yi xamante danaa ci joxe benn das yonent yàlla yusuf yonent yàlla yusuf kero bi ko mbokkam sanke jamone jamono dox bañ ñëwal ko soxlaal ko mu xàmmee leen te xamuñ ko xamante day jur miinante réeréwante day jur uute fa maa taxaarafa min ëxtalaf wa maa tanaakara min ëxtalaf اختلاف يالنا كي يالله موسى بيغا خمين ينتيال يوسف خمين مبوكي مي تقمون كو فعرفهم القرآن من وأم له منكرون ما تغزنا نيسوني أديويا لغي قمن تأمغوت موم دونغو مول نخم خمين لين مي نيم خمغوين كو وا ني داف فك سين مبوكي نتي اي تيونو اديو بري بري بري بري ني ديم كان مريف لين تعرف تعرف موي فخي واجي خم comme ni Seydina Cheikh defoon ak Sida Ali Harazim bam génte géntam nga ñu day ñom ñaar ci waj da mu xamne ki kii xalifaam la te Sida Ali Harazim wul ko Seydina def ci mom taaruf moy nettalil ko géntam nga nako yow ci talibé nga bok loolu moy taaruf bim mu bin yamin inni ana aquka feñu ay mbokam léegi nak taaruf amna digënté yonti yàlla yusuf ak ay mbokam len lan la jur première bi mooy nee na laa tasriba aleykum al yawm mbokk taalibe yi xamante li jariñ jëriñ mooy ñuy muñalante suñuy manki manki keroog bi yu yàlla yuusuf xame ay mbokkam tañ sànkoon ko ca teen ba mënoo ne ne tey maa yore yar bi maa yore doole ji maa yore sañ-sañ bi danaa fayee ko ñoom mais xamante lim la war a jural mooy ngay jéggal jaame yàlla yi ci manki manki yi ñu la defoon biñ la xamagut mu ne leen laa tasriba aleykum al yawma sen tooru dem ba dama len ko top tay li la wara jural xamante li mu wara jural xamante moy mu jël yéreem ya wax jox len sama papa jooy na ba ay bëtam lëndam bu de bu sàmbalaan mi demee ci mom dana dana gis lol jangat la moy war na fexé ba sa mbokku talibé bu ay bëtam lëndamee sa mbokku talibé nekkal mbalanam yontu yalla yusufama di di wone ay bax baxam bam gis waji